daf ci am doole mhm. fédération bi am ci doole mhm. rabita bi mo ñëk taxaw bañ ko taxaw serigne bas abibu mom mhm. moko ko ko taxawal nek ku jambaré na nek mbul kayal yaakaar naa te yak du sax oh, yaakaar naa am serigne abibu jangal na bay jangal dom jangal sët non lañ koy waxe am ñoo xamné ni Eh, jàngal loolu daal dañuy wax moom suñu daam Abdourahmane Lo jàngal nañ ñu yëpp ah, daana waa ko suñ Tuubaa yëpp ñu leen jàng borom xam-xam lañu waaw borom xam-xam suñ bés abi bu di def loolu maa ngi moom mu ci commencé liggéey dès le début dañu amoon benn culture ne ñun woy duñ suñu daara yi daal duñ jaxasoo ak état ma ne leen su ngeen jaxasoo woon ak état nu ngeen def ma lay wax ëpp na vingt ans wala vingt cinq ans yéen li état yor yéen a ko moom parce que yow ceeb bi ngay dem essence bi ngay taaj état moo ci jël dara te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na xeexi pour jël pour jël kii Ababakar dem na xeexi pour jël euh, kii euh, impôt euh, waaw alxuraan wax ne même bu dee bu même xam ne ni ay alalu nag naan ñii alalu tubaab la inna allazina kafaru yunfiquna amwaalahum li yasaddu an sabilillah fa sa suma tàkkonoon hasratan ba ñu wax loolu ma ne bañ d'accord ak man ubbi seeni bët ci loolu ma leen dee leen dugg di waxtaan ak gouvernement ñu dikk fii dans le temps Abdoulaye Wade ñu kale fi benn affaire damaa fàtte nu mu tudd ak ñoom Cheikh Hamidou Kane banque mondiale tegoon ko tegoon ci ay moyens ma bokkoon ci biir pour ñu defal ko waaw ci liggéey parce que booba ñooñu laa bëggoon ñu lënkale pour mën a waaye la ngi dañuy taxaw bëggoon naa ci sama loxo bu baax a seen premier congrès maa ko financé seen tournée maa ko financé dégg nga. mu fédération bi. fédération bi seen premier congrès. des daayira di Sénégal des des daara di Sénégal. maa ko financé ñu def ko fële Ablaye Wade maa leen yóbbu ba ci Ablaye Wade. Mhm. Ablaye euh, président Ablaye Wade fay leen hôtel bi. lañ fa lekk yëpp maa leen ko jox maa leen jox transport bi biñ paree ma may ne ñu may tourné président Macky Sall bi mu njëkkee toog bala ma ko wax san problème ba mu reçoit li ma ko njëkk wax mooy kay toppatoo daal yi ndax ñii dañ leen a fàtte bu mag a mag mi ngi développer ci seen biir ça peut faire mal un jour mu jox ma rendez-vous man Tahir Fall kii sec man ak Amadou kii euh, Moussa Fallo ak kii sec nu mu tuddati euh, kii Seck bi nekk secrétaire général waxam mooy Mariam Faye moo leen jox 10 millions sama kanam ñu organiser fii CSS moo doon ko ñëw président defar ma am empêchement waaye nag jël mbokam yëpp indi fa man boobu laa leen wax ne leen lii mooy daara seen ko toppatoo. pour que ñu collaborer ak gouvernement. daara collaborer ak gouvernement gouvernement collaborer ak daara. d'accord ensemble ñu demaat xaaral ñu demaat dama lay wax lu baax li ma ci def. te hmm. li may wax lépp ay seede ñu demaat ba ci 2012 président njëkk naa am affrontement ak daara yi. ah bon oui en 2012 mooy bi ñu jàppee ay sëriñu daara ak yooyu daara yépp décrété benn jour te dañuy geraw dañuy jàng alxuraan ma yëg ko woo leen mu ne ma wool ma leen ba ma leen wooyee sëñ Bass Abibou. dana ma yow rek yaa ma na a dugal pale xam nga sëñ Massa xam naa waaw moom la yooyu tax yow rek yaa ma ma ne ko ñëwal ñoom ñu ñëw ñoom Tayer Fall Ibrahima Seck ñoom ñëpp ñu ñëw wër président wax ko seen soxla boobu la concertation boobu waroon a continuer hmm. xaw ma nag li ko continuer wul ci ñoom la wala ci état la waaw waaye li may wax mën naa nekk ci ñoom ndax li leen di man mi cest di dafa am loo xam ne ci daara nekk waaye ci ñëpp lu nekk mi ngi ci commerçant yi mi ngi ci daara yi journaliste ñàkk bañ ànd bi ànd bi moom waxtasi mu bi waaye état nag day am foo xam ne moom mooy imposer ànd bi parce que man daa boobu li ma leen créé woon li ma leen waxoon ni état def conseil économique et dafa war a te tere conseil supérieur de daara mu nekk institutionnel ñu ñu mel ne assemblée nationale nañ xam nag ni ñu koy tànnee ndax daara yee wote tànn wala dañuy laaj kilifa diine yëpp gis nga ci temps boobu la ma kenn wax lu am solo tant que état bi xàmmewul sëriñu daara ak doomu daara duñ dem xam nga luy sëriñu daara doomu daara. Mm-hmm. li différence doomu daara mooy ki daara jur. waaw ñun doomu daara lañ. waaw mooy sëriñu daara mooy ki nekk daara jee jàngale naan bisimilah comme ni sëriñ Muntaxa kooku mooy sëriñu daara ndax sëriñ Muntaxa ba léegi dégg naa ñu ne day jàngale. Mm-hmm. waaw. sëñ mat saxeet mi fi nekkee ba muy génn àdduna daan dalal baar ndax barke la ndax sëñ Muntaxa keroog li mu def wane na ne moom day toog nit ñuy dal mu dalal ko ndax léeg-léeg ah, ah, kilifa ku am barke dalal nit. da koy jox kiis kiis yi daan ay kilifa ko doon. waaw danaa sax mu ma dalal xam nga kooku mhm. sëriñu daara la même bu dee xalifa général sëriñu daara la. absolument waaye doomu daara mooy ci daara ji laa génne. Mhm. su daara di wax maay taxaw di wax maay def nangam déedéet man doomu daara laa du ma sëriñu daara je ne prends jamais place à la place di daara. dama jàngale woo mais ci nga jàngale wu ma damay waaw jàngale ma man leneen laay jàngale. waaw ku ma laaj commerce ma jàng mais ni ñuy yor daara man mënu ma koo jàngale léegi. léegi nag loolu mooy problème état bi tant que jëlul affaire bi institutionnalisé ko xam ñan la woo xam ñan la war a waxal. Mhm. dëgër ci loolu. ñee tamit ñu jël ne kat état bii du suñu noonu. Mhm. état bi même bu doon ab yéef nañ na baal ay tubaab a ko jiit ay wiifa su dee njàngalem diine la dañ cee bokk. parce que suñu alal lañ ko dénk. waaw ah, réew mi ñëpp a ko bokk. waaw loolu rek su loolu amee day yomb. d'accord pour ma wax la rek li ma ci daj. non non loolu loolu dégg naa dégg naa li nga daj ci affaire daal. mais mais Serigne. Hmm. xam naa sax wax si ñu ngi di waxtu waa ngi dem mais dama dama ne yow fi mu toll bu ñu la déggee day mel na yow dañagul ne ba tey ci sam xel ne chambre de commerce de bii mën ngaa dem ba yàgg nga jàkkaarloo ak gars yi tout tout pas